jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi seen émission pencum réew mi daal di dellu siwaat xam nga ni ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot 15h jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu dellu am mbégte. daal di nag euh, dalal Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye nag euh, moom ingénieur la professeur la aussi. danañ gën a ñëw ci présentation bi waaye bu dee lu jëm ci wàllum politique moom moo jiite parti bi nga xam ne mooy parti républicain démocrate du Sénégal di PRDS. Euh, membre la tamit ci coalition jot na ñu fas yéene séq ak moom waxtaan waxtaanee loo xamante ni jëm na ci wàllum élection ak tolluwaayu réew mi Mamadou Ndiaye ñoo ngi lay nuyu. Abdou Khadir maa ngi lay nuyu. di nuyu aussi mboolu milite euh, auditeur wu Rewmi FM yi nga xam ñu ngi déglu. di di ci boole di la di la baalu àq di la baal àq di baal waa Sénégal yépp àq di leen di baalu àq ci tabaski bi ñu jóge euh, jërëjëf euh, Mamadou Ndiaye yow tamit ñu lay baal àq bu baax te di la baalo àq. te di balax mbooleem auditeur ak euh, auditrices yi nga xam ne ñooy déglu saa su nekk rajo réew Rewmi FM euh, parti républicain démocrate du Sénégal yow yaa ko jiite yow Mamadou Ndiaye ingénieur nga professeur nga aussi nekk membre ci coalition jot na euh, yaa ngi def politique ci département bu Fatick yaa ngi dëkk ci commune bu Patar Sine Euh, ndax mën nañoo xam ndax dinañ waxtaani coalition jot na danañ waxtaani élection locale yi mais parti républicain démocrate du Sénégal parti boobu yow yaa ko jiite kañ ko ko créé. waaw parti bi ñu ngi jot euh, récépissé bi en mars 2015 euh, mars 2015 lañ ko jot boobu bi léegi ñu ngi ci ñu ngi yëngatu ci vraiment lu ko mën a fësal pour nit ñi gën ko xam xam li nga xam moo tax mu jóg. kon 2015 euh, ba léegi nit ñi xamuñu ko ndax yéen a ngi ne yow yaa ngi ne yéen a ngi dox ay jéego lu koy fësal pour nit ñi xam ko 2015 ba léegi xam xamaguñ parti bi. non waxuma loolu c'est-à-dire dama ne bañ ko créé 2015 bi léegi ci la ñu nekk di dox. Mm-hmm. Euh, parti bi nag xam naa ne kenn du wax ne xamu kenn xamu ko parce que euh, wër nañu Sénégal wëraat Sénégal. ba ma ñëwee fii en 2000 vers fin mille 2015. euh, de février 2016 à janvier 2019 def nañu 125 000 kilomètres bi Sénégal donc euh, parcouru nañ Sénégal de l'est à l'ouest et du nord au sud euh, te ñun yemuñu ci dëkk yi ville yi dëkk yi nekk ci euh, tali yeeg yooyu non dañ on sommes allés aux profondeurs dans les profondeurs du du pays dem nañ fu nekk fu nekk dem nañ fa Euh, xam nga ku jóge dakaar dem bi ba Fongolemi euh, loolu c'est pas une mince affaire. d'accord mais mais mais mais mais Mamadou Ndiaye mën nga wër Sénégal gi yépp euh, te mu nekk si après man na nekk zéro ndax tey par exemple tey bu ngeen wëree Sénégal gi yépp te fenn fu ngeen dem amu leen fa benn section bu dëgër. loolu moom moog zéro ñoo yam loolu est-ce que moom mooy wër Sénégal gépp est-ce que mooy firndeel ne part la bu nit ñi xam wala part la bu am doole. mais fu ñu cest à loo xam ne aussi il ngay nga koy ñu koy ñu koy euh, euh, ñu koy ñu ko boole en quelque sorte ñu koy ñu ciy réfléchir quoi mooy lan mooy nit ki yaakaar naa kenn du jóg euh, ànd ànd ak délégation quinze seize ay personnes ngeen dugg ci biir réew mi di wër pour zéro yaakaar naa fu ñu dem Euh, dañuy fekk dañ fay fekk ñoo xam ne dañu commencé liggéey ci parti bi nañu gis ñëw leen gis li ñu am li ñu liggéey euh, donc euh, mun nañ fa ñàkk am li ngay wax un leader avéré mais am nañ fa ay nit ñoo xam ne tey suñ demoon élection ñun la ñuy vooteel donc loolu mbir mi foofu lay commencé da ngay commencé par ay militants après militants yooyu mu ci mu ci am koo xam ne il va s'avérer être un leader ko commencé à son niveau commencé massifier parti bi gën pour ñu gën ko xam côté yooyu donc euh, soo déggee ma ne la pour ñu gën a xam parti bi un parti on n'a jamais assez kenn on n'a jamais assez de militants est-ce que tu vois mun nga dem fenn euh, mu wóor la ne par exemple su élection dem amoon tey da nga koy da ngay gagner élection yi foofu ah mais euh, li am importance mooy souvent. waroo doylu munoo wax ne ah fële am naa suffisamment de militants la bas non donc euh, euh, fësal parti bi c'est toujours c'est un processus boo xam ne il est sans fin du jeex mu day day dem di continuer rek. d'accord léegi euh, Mamadou Ndiaye parti bi kon daal c'est au niveau national ou ou international aussi. effectivement international aussi parce que am nañu ay militants dans la diaspora. d'accord léegi léegi xam nga Mamadou Ndiaye li tax ñu lay laaj loolu. Euh, ci parti républicain démocrate du Sénégal mooy Sénégal dañ fi gis ay parti politique yu bari yoo xamante ni tur bi rek moom moo fi nekk wala presque ki nga xamante ni tey moom moo jiite parti boobu est-ce que parti républicain démocrate du Sénégal bi Mamadou Ndiaye jiite nekk na parti boo xam ne euh, structuré nañ ko. mën nañoo wax ne kii moo jiite parti bi mën nañoo wax ne kii moo jiite jeunes yi mën nañoo wax ne kii kii moo jiite charge yi wala kii moo jiite femmes yi. Euh, ndax parti bi euh, am na structuration bu dëgër. ok euh, li ma lu mën a wax mooy structuration bi nga xam moom lañ bëgg ci parti bi defaguñu ko mais li ma lu mën wax mooy parti bi organiser nañ ko parce que on a un comité exécutif boo xam ne mooy mooy tourner parti bi mooy topp di seet lan moo war lan lañ war a def fan lañ ko war a jaare kan lañ ko war a defee donc loolu dafa nekk loo xam dafa am dafa am solo. il est bien vrai munuñu tëba tëb un parti qui vient de naître bon ça fait environ six six ans ah nga tëba tëb ne ko da nga ko structuré je pense dafa am benn travail base boo xam da nga ko a def travail de base boobu soo demee ba mu mat ci ngay organiser congrès euh, jéem a structuré parti ñi nga xam nit ñi euh, ku nekk dina xam parti bi lu mu wundu lan moo ko tax a jóg kan mooy responsable fii kan mooy responsable fële ah naka la ñu war a liggéeyee be parti bi euh, gën a fës Euh, dem élection gagné ay élection parce que ñun euh, créé wuñu parti pour euh, wuti ay poste quelque part on a créé un parti parce que li ñu intéressé mooy Sénégal dañu am un projet pour le Sénégal ñu am yaakaar ne suñu joxoon réew mi tey ah nañ ci def loo xam ne ah vraiment peut-être nit ñi dañuy wax sax ne waaw lu tax lu tax ñi teelu ñoo ñëw mm. parce que ñun Sénégal moo ñu ñor. d' accord léegi d' accord léegi euh, Mamadou il faut ñëw ci projet bi nga xam ne tey moom nga am pour le Sénégal euh, yéen waa parti républicain démocrate du Sénégal euh, mbokk auditeurs yi danañ waxtaan tamit ci coalition jot na ndax membre la ci mais moom Mamadou Ndiaye il faut ma laajaat la laaj boobu ci parti politique yi ndax Sénégal parti politique yi dafa bëri bëri na ay parti politique yoo xam ne musuñu dem élection am na parti politique yoo xam ne dañ leen di woowee sax ay parti télécentre ak ay parti yoo xamante ni dañuy bootu rek ci mouvence présidentielle am na ñoo xam ne sax seen i parti bu élection ñëwee surtout élection locale dañuy jël récépissé bi dem luwee ju ko euh, yéen seen parti bi parti centre la parti buy toppaate la wala parti boo xamante ni tey dafa taxaw pour dem ci ay élection ak ndax tamit mos ngeen a participer ci ay élection parti bi parti bu gëm boppam la dañu am Euh, gëm-gëm ne ñun mun nañ jël réew mi te mun nañ ko développer donc duñu parti télécentre euh, soo gisee. du ma tamit. non duñu parti yóbbaale ma aussi euh, ñun dafa am comme li ma la wax rek dañu dañu dafa am lu ñu gëm dañu gëm ne Sénégal bi un Sénégal meilleur et possible te gëm nañ ne ñun mun nañu nekk ñi nga xam ne ñooy indi sa Sénégal meilleur loolu tax ñu ñu taxaw ñu taxaw ci. Euh, ci euh, partie bi. loolu tax ñu taxal partie bi euh, am am suñu vision vision bi ñu am nag lan la mooy fexe ba nga xam ne tey jii sénégalais bu xiif di nga mën a lekk sénégale bu mar di nga naan ndox mu sell sénégalais bu feebar di nga faju sénégalais bu jàng wala nga am nga def formation ah di mën a liggéey est-ce que vous lii mooy suñu vision. lii lañ gëm ne mun na nekk te am nañ yaakaar ne ñun ñi suñu Sénégal yi wóoloon ba jox Sénégal nañ ko réaliser waaw donc léegi euh, euh politique dafa dafa dafa compliquer euh, man li li lii li nga xam mooy nekk su euh, vraiment li nga xam moo ma intéressé mooy les Sénégalais dund bi Sénégal di dund mu nekk dund bu métti ah moom laa gëm ne. Euh, à travers suma vision euh, suma suma Sénégal yi ba jox ma réew mi mun nañu ànd defar ko léegi nag euh, wax nga fi ay parti yu bëri c'est vrai man je déplore ça man bi may créer parti si une seule fois ci su ma seetlu parti fi nekkoon su ma gisoon partie boo xam ne bokk nañu ligne directive bokk nañu gis-gis bokk nañu vision politique du ma créer parti damay dem rek damay dem militer foofu mais def di ne man suma gis-gis ak suma bëgg-bëgg ci parti politique euh, dama ko gisuloon ci parti yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ba may créer parti euh, parti politique maintenant am na certes ñoo xam ne am na lu ñu bokk waaw am na lu ñu bokk euh, loolu ñu bokk nag point de convergence la boo xam ne mun nañ ci liggéey am mun nañ liggéey ci loolu mais aussi mun nañ seet yeneen yoo xam mun nañ ko dajale su des concessions yu ñuy def mutuellement ñu mun a ànd liggéey je pense que loolu moo indi suñu dugg ci coalition jot na. ma mais euh, Mamadou Ndiaye euh, sànq si sa biir wax wax nga ko ay yoon yoon bi may créer parti kon yow yaa créer parti bi wala da nga ànd ak ay nit mu ngeen bokk xalaat ngeen créer parti bi. dama ànd ak ay nit ñu bokk xalaat. ngeen créer parti ngeen ñu créer parti bi soo déggee ma ne bi may créer. Euh, dama dem dama euh, jël suma bopp def ko comme ñooñu dama dama yaakaar ñun ñooñu euh, soo ñu soo ñu boolee kenn lañu parce que en termes de vision vision bi ñu am benn la donc ça signifie que mun mun nañu wax ne kenn sooy wax ne dem bi ma créer parti bi c'est pas moi mais c'est l'ensemble de ces individus yi nga xam ne dañu bokk vision bëgg gis-gis ci. li nga xam noonu la ñu war a doxalee Sénégal pour mu avancer. d' accord léegi euh, Mamadou Ndiaye euh, xam naa di nga ci tontuwaat ndax euh, président Macky Sall sax lii ngay wax moom la waxoon bi muy créé APR te bi demee ba si diggante bi ba si digg bi Sénégal yi am na ñoo xam ne nañ si déception peut être bis boo jotee réew mi. doo ko yoree ni ko président Macky Sall Macky Sall yore li nga xamante ni tey moom mooy seen parti politique yéen seen parti da ngeen di faral di wax rek su ngeen ma joxee réew mi lii laay def lii laay def mais avant ñu lay jox réew mi est-ce que am na am na ay volet social yoo xamante ni tey euh, wala ay taxawaay yoo xam ne ma ngi jëm ci wàllum développement local wala euh, ay proposition yoo xam ne yaa ngi koy jox yaa ngi koy def au moins bu ñuy jotee réew mi euh, bu ñu ko gisee sax man si sukkandiku est-ce que loolu yaa ngi siy participer si développement réew mi bañ a yem si su ngeen ma joxee réew mi su ngeen ma joxee réew mi. <laughs> bon Abdou Khadre question boobu nga posé neex na ma lool parce que nag. Euh, def li question boo xam ne ñi ko mën a tontu de façon positive ci dëkk bi ne dañuy politique dafa bëriwul euh, dafa am ñu bëri ñoo xam ne tey euh, soo leen gisee ñuy def dara c'est parce que boobu dañu commencé politique di wut dara man ba ma commencé def ci suma gox ah boobu mosuma def politique mosuma ko bëgg je n'ai jamais on m'a interpellé ma à plusieurs reprises pour ma def politique ma bañ ñu wax mosuma neex. su may su may jigéenu euh, commune pour wax la rek boole naa leen jox leen xaalis dama leen ko may du du du loo xam ne euh, dama ko dama leen ko lebal dama taxaw woo leen ñu ñëw ma jox leen un million dem leen liggéey te un million boobu jur na xaalis bu bëri te loolu suma poste laa ko jële woon liggéeyuma ci gouvernement dama ko liggéey euh, ci suma bopp su ma jigéenu dëkk génn naa huit cent mille jox leen suma village fa ma juddoo dem leen liggéey xaalis boobu tey ça fait de deux millions ñu ngi ciy liggéey laajuma leen remboursement dama dama leen ko may est dans la jeunesse j'ai commune bi teg naa fa ay commune ay ay yu bëri yoo xam ne parce que euh, loolu dafa am solo vacances ci jotee pour que xale yi ñu ñu bañ a pour livrer à eux-mêmes dafa def dafa am important ñu leen boole ci loo xam ne dañ ko bëgg muy le sport et à travers ça ci lañ leen di doon tegal ay coupe yoo xam ne vraiment ñoom ñëpp dañu ci doon gis seen bopp. yaa ko def man maa ko doon def. lu ëpp lu dépassé loolu euh, région de Fatick pendant cinq ans pendant cinq ans de 2005 à 2010 j'ai organisé un concours régional de mathématiques Euh, les preuves vous su ngeen demee IA Fatick nañ leen ko wax ñoom ñoo ko doon organiser je suis venu les voir ma ne leen man je suis un mathématicien de formation xam naa li mathématique mën a def ci doomu aadama ci xale ba bis boo fooree en mathématique amul dara lu la të matière bu neex mun nga ci foor ma ne nag suma contribution au développement de ma jeunesse j'ai mis sur place organisé un concours régional de mathématiques boo xam ne c'est la partie c'est à partir de la quatrième jusqu'en terminale chaque niveau on est dañ ci doon jël trois personnes dans toute la région de Fatick. organisé maa ko doon organisé. gis nga les élèves de première terminale avaient avaient euh, un ordinateur de dernier cri ce concours ne me coûtait pas moins de dix millions par an. je États-Unis laa nekkoon dama doon paas ñëw fii uniquement pour. organiser dépa euh, joxe joxe nu mu tudd les les les prix. dama bëgg nga tànnal ma ku mën sa def loolu xaalis boobu suma poste la doon jóge jógewul ci poste gouvernement. te boobu defoo politique. boobu ma politique suma xel sax nekkuloon ci politique ce qui m'intéressait c'était comment développer ma ma région ma xam ne liy développer am gox c'est le développement des ressources humaines ma ne xaaral ma jàppale sumay sumay sumay rakk. su may frère suma neveu ah ñu xarañ ci matière bi nga xam ne am na lu bëri lu mu leen mën a indi. d'accord parewul parewuma euh, je suis un nation je suis je nationaliste dama gëm suma réew dama bëgg suma réew soo jëlee le le euh, l'université virtuelle c'est ma marque. c'est-à-dire. je suis allé voir le professeur Mary Teuw Niane en compagnie d'un de mes neveux qui son son son ami intime parce que qu'ils partageaient la même idéologie dans un parti politique de l'opposition j'ai vu mon neveu la ma ne ko problème bi université enseignement supérieur Sénégal am am naa ci gis-gis te am naa yaakaar ne suñ ko defee am na li ñu ci mën a def te tey jii soo jëlee par exemple euh, li nga xam ne mooy étudiant ci université Dakar ah, ak li nga xam ne moo taxoon ñu ñu ñu ñu euh, construit université bi le nombre d'étudiants pour lequel l'université était construite dépasse de très loin li nga xam ne euh, est très inférieur à ce que euh, au nombre d'étudiants yi nga xam ne tey ñoo fa ñoo fa war bëgg a jànge étudiants yi dañu ñëw dugg ci biir classe duñ dañu ñëw jàng duñ sax mën a gis seen professeur maanaam professeur vous savez ce qu'on va faire on n'a pas pu satisfaire les élèves pour jël leen indi leen ñu ñëw ci université yi jàng mais léegi li ñuy def dañuy jël njàngale bi yóbbu ko ci ci ci élèves ci étudiants yi mu ne ma naka lañ koy def ma ne ko on va virtualiser l'université on va créer ce qu'on appelle des ENO espace numérique ouvert yoo xam département bu nekk ñu tabax fa benn nga xam ne élèves étudians yi élèves yi ku ci am bac au lieu ñu lay indi Dakar ngay am problème mu hébergement di am problème mu ticket di am problème mu transport di am ah mun lañ la affecté sa sa département nga xam ne. les problème seront moindres est que tu mu ne ma waaw déglu ma rek. waaw mais professeur. mais professeur may ma rek ma terminer may ma terminer ma mu ne ma waaw ñu ñu taxawal ñu taxawal logiciel bi gars yi implémenté ko tey gis nañu résultat bi certes peut-être am na ay difficultés mhm. mais li nga mën a gis mooy am na problème yu mu résoudre. difficulté yooyu nag difficulté yooyu muy mu am nag dafa laajte accompagnement accompagnement boobu pour peut-être euh, moo manqué mais tey dama lay wax gis nga kooku suñ ko toppoon sax gis nga jafe-jafe ñu am ci jàngale ci mbas mii duñ ko am parce que objectif c'était pas seulement yem ci université bi mais c'était aussi l'éducation nationale. d'accord d'accord. Euh, parewuma de euh, dafa naan parewuma <laughs> ah, parewuma yaa ma laaj il faut mu wax. Ah. beneen kii bi lan la. soo dégloo dans les années soixante euh, deux mille douze douane toog na fi mënatuñu dédouaner deux mille onze deux mille douze je me rappelle plus exactement kañ toog nañ fi mënu mënatuñu dédouaner parce que la plateforme xam nga kii nu mu tudd euh, système gaynde ah dafa amoon problème par système en même temps mais soo jëlee système gaynde nga boole ko ak plateforme bi nga xam ne ci lañ ko porté ah, c'est-à-dire système d'exploitation d'exploitation nekku nekkuñu woon benn. donc bi ko porté installé ko ci système ci plateforme Z bi dafa amoon dafa y avait un problème de compatibilité. mënatuñu ko dédouaner Mactar Cissé par son directeur système informatique le colonel Simon Pierre Thiaw je le cite parce que c'est un témoin avéré mu ne ko gisal Mamadou mu jàppale ñu. bañ toogee waxtaan mu ne ba mu bëgg a jàppale ñu te ñun amuñu xaalis ma ne ko ma ne ko d'accord naa jéem. ma touché. on dépend on dépend euh, IBM Afrique euh, euh, dépend de Dubaï. Mm -hmm. ma woo Dubaï ñu ne ma ah non il faut que ñoom ñu fay parce que c'est un état. ma cable ci euh, maison maire aux États-Unis yàlla dafa def ki nga xam ne moo yore plate moo yore woon temps plateforme Z au niveau mondial en termes de vente c'était mon mentor. D'ailleurs, bi ñu ubbi le bureau de Dakar, je l'avais invité, il était là. dayeur demoon nañ sax seeti douane en tant que client on les a rendu visite ma wax ko ko mu ne ma ma ne ko nag man Sénégal la Sénégalais la moom pays dafa am problème parce que majorité seen recettes yu ñu am yépp ci douane lañ koy jëlee te système bi nga xam mooy dédouané dafa am problème j'ai touché Dubaï ñu ne ma mënuñ ko euh, il faut il faut que ñu fay te man il faut ma dimbale suma réew. je pense que occasion dimbali suma réew bii mënuma ko munu mënuma ko bàyyi parce que quand même xam naa xaalis dédouanement bi lu muy apporter ci suñu réew temps yooyu dédouanement bi ça coûté sa arriver entre les quatre cent à cinq cent milliards par année mu ne ma may ma quelques minutes moins de dix minutes après mu rappelé ma ma demain il va y avoir un ingénieur qui va venir de de Dubaï après demain y a un ingénieur qui va venir des États-Unis deux ingénieurs yoo xam ils ont fait ici deux mois yoo xam ne chaque matin dañuy xëy di ci liggéey bi ay dix huit heures dix neuf heures la ñuy toog la kii dërëm ndekki sax le gouvernement l'a pas payé pour ces gens-là nous avons tout pris en charge IBM loolu ça ne devrait pas coûter à l'État du Sénégal moins de un milliard cinq cent ils l'ont eu gratuitement. Ndiaye nga may ma yow nag euh, kon euh, si présentation bi aussi informaticien bu bu bu mag mais nag il faut ñu revenir tuuti euh, li nga wax am na solo il faut ñu revenir xam naa di nga di nga yeggale mais ñu revenir rek ci université virtuelle yi. proposition boobu nga def noonu am na solo ci côté économie sax dina am solo ndax boo mosaa jóge bu doon tey da nga jóge ba fi ma dëkk Bawol bëgg a ñëw Dakar. Euh, mën nga jël chambre wala doo am foo dëkk wala sa jàng yooyu mën na yàqu ay tout ça euh, mais yow bi nga defee euh, xalaat boobu est-ce que tamit woon nga mesure yi nga xamante ni tey moom nga leen war a wax na leen mesure yi bu ngeen ko jëlul projet bi mën na yàqu ndax instant bi bëri na si ñoo xamante ni tey chaque jour ñu kaas chaque jour ñu kaas amuñu internet. Euh, amuñu leneen ak leneen te internet yaakaar naa ne yaakaar naa ne dafa xaw a terre ak fi àdduna toll mais projet boobu jafe-jafe yooyu ndax yow sóoraale woon nga ko. mais euh, xam nga euh, gis nga soo demee cib teen bëgg a root il faut nga yore baag soo yorul baag di nga fa yàgg te su keneen ku am baag su ñëwul yàpp la di ñibbi. Euh, ndaawu neen ndaanu ndaawu kese euh, ku wax virtualisation wax internet yàlla defa def nag Sénégal euh, ci pays africain yi fi nekk ci gox bi ci région bi wala même hors de la région mun nañu wax ne Sénégal def na ay jéego yu bëri ci mbirum ci mbirum internet donc loolu en principe waruloon poser problème ah au niveau de du de pour l'université virtuelle parce que euh, li war rek mooy ñu tegal ko benn bande passante boo xam ne ah vraiment mun na koo jàppale ba information di flow di di dem ah, de façon vraiment euh, façon boo xam ne du am benn benn jafe-jafe. xam nga loolu dafa nekk loo xam ne euh, jarul jarul sax ñu koy wax est-ce que toi comme li ma la sànq rek. ma jëlaat beneen exemple rek boo xam ne tey jii soo bëggoon dem Mbuur te yoroo oto yoroo welo yoroo moteur moto kii engin ah euh, scooter nooy def dangay dox mais balaa nga yegg di nga sonn mais c'est la même chose wala nga am yoon bu xat bëgg juróomi oto wala fukki oto bu ci jaarale en même temps. waaw mais est-ce que état bu Sénégal euh, pré dafa amul précipitation bu mu def ci projet boobu. non yaakaaruma ne précipitation la yaakaar li ma yaakaar mooy ñàkk a accompagner la parce que peut-être bi ñu koy initier euh, nombre d'étudiants yi amoon donc nombre d'étudiants yi nga xam ne ñoo doon connecté wu di bëgg a jël cours tollu woon nii tollu tey comme comme comme amphithéâtre yi nekk université Dakar rek xam nga bi ñu koy créer ah man bi ma fi nekk étudiant amuñu woon problème espace espace doo ñëw ci amphi yi dañuy toog place yi des. mais au fur et à mesure ñuy progresser étudiants yi di gën a bëri place problème place di am c'est la même chose su fekkee su fekkoon ne dañu am su fekkee ne euh, y avait par exemple deux cent wala trois cent étudiants yoo xam ñoo doon connecté bi muy door a te tey ñu nekk mille mais problème dina am. waaw mais mais problème mënoon na bañ a am. problème problème mun na bañ su fekkoon ne. vision bi dañu amoon vision. bañ a defal naa rek max la. gis nga xam nga li ñu yàq lu ñu yàq ñun euh, ñun africain mooy ñun. tey la ñuy. xool tey la ñuy xool du ñuy xool suba. Mm-hmm. gis nga tey sooy prep sooy def sooy defar tey da ngay waajal suba. mën nga xool daal 10 ans ci kanam. année nga ne ne 200 étudiants. mais plus 200 étudiants pendant 10 mais dama la waajal su da ngay waajal suba dama la jox par exemple benn exemple bu simple jëlal suñu péage bi péage bi bi muy dóor a génn amuñu woon problème trafic mais commencé nañu am problème trafic parce que nombre de voies ñuy am xalaatuñu ne dans 10 ans. ah il y plus de voitures il y aura yoo xam ne dañuy am ay oto yoo xam ne dañu bëgg a jaar fii. d'accord waaw d'accord jërëjëf euh, euh, Mamadou Ndiaye euh, moom ingénieur la professeur la informaticien la aussi moom moo jiite parti républicain démocrate du Sénégal fii nii génn nañ sax ci wàllum wàllum politique bi ndax maa la doon laaj li taxoon ñu dugg fii. dama ko posé woon question pour ñi nga xamante ni ñooy dab émission bi ndax rajo dabante la dama ko laaj na ko lan nga def. Euh, avant que ngay dugg ci wàllum politique ndax en général li ñuy gis Sénégal am na ñoo xam ne dañuy jekk-jekk rek ne su ma jógee wala su ma falee lii laa def lii laa def vraiment wax nga ci lu am solo bu dee nag na si bëgg a yokk ci une rek ci loo xamante ni def nga ko bien avant ngay dugg ci wàllum politique bi ndax loolu dafay baax ñu rappeler ko. waaw non de toute façon euh, li am importance. Euh, je pense que nit ki dangay am vision mu mu jëriñ. Mm-hmm. parce que waaye man am na élèves yoo xam ne. dama leen dama leen fekk ñu dàq leen ma leen di fayal njàng ba tey ñi ñu ngi def ay masque ñi ñu ngi def ay licence ñi ñu ngi liggéey euh, ba ma koy def xalaatumoon suñu bopp moom laa xalaatoon parce que dama gëm ne ah derrière lui yaa il va y avoir une famille boo xam ne na ko toppatoo parce que man loolu moom man c'est ça qui m'intéresse c'est le Sénégalais qui m'intéresse comment améliorer le quotidien du Sénégalais man moom moo nekk loolu moom suma suma préoccupation. d'accord mais professeur euh, ñu laaj la tuuti rek ci une minute euh, violence bi ñu gis ci biir université yi doog jàll nag ci wàllum euh, ñëwaat ci wàllum politique bi ndax professeur nga mënuñu la ñàkk bañ laaj loolu yi ak ci école yi élèves comportement bi ñuy amee ñuy yàq ay ay ay génne blouse di ko xooj euh, ci ndox lu mel noonu yow en tant que jàngalekat euh, lan moo ci sa xalaat. damay njëkk a ñëw ci élèves yi euh, gis nga dafa am loo xam dañ koy dañ dañ duñ. voilà cest à dañ koy xeeb mu am importance. nit ñi dañu yaakaar ne éducation école rek la école day instruire parent mooy éduquer am na éducation boo xam ne xale bi su ko amul këram non seulement mënut a jàng mais mënut a joxe exemple à travers un comportement dans la société te loolu dafa am solo euh, njàngale bi dafa am ñetti ñetti euh, euh, ñetti ponk yoo xam ne ñoom ñoo ko séq écosystème benn bi c'est parent war nañ jox seeni doom yar boo xam ne ci kër gi suñu génnee modèle la ñu war a doon. deuxième bi c'est école bi mooy jàngalekat bi nga xam ne mooy jàngalee mooy jàngal xale yi war na nekk un modèle war na aussi leen di won loo xam ne lii mooy li nga xam moo leen di avancé lu dans ce lii moo gën lii mooy tax ñu naw leen su fekkee ne demee jàng nañu bépp am seen diplôme ba war a dugg ci la la production. troisième bi mooy la société. société bi xale bi su su xale di dox ba gis élève du du jàngi romb benn xale buy buy saaga mag wala bu koy wax loo xam ne waru ko wax mais da yaakaar ne euh, loolu mooy dund alors que c'est pas ça donc société bi aussi day jàngal xale bi donc pour wax la ne euh, gis nga le problème fondamental c'est un problème d'écosystème dafa am ñetti ponk ñetti kii yooyu groupe yooyu ma la ku ci nekk da am responsabilité ci. Eh, benn mënu ci manqué développe benn mënu ci manqué. benn mënu manqué xale bi suñ ko yarul ci kër gi mun kii ku respecté wul papam ak yaay mun ta respecté enseignant. ku respecté wul enseignant mënoo respecté ki ci mbedd mi. ku ku respecté wul enseignant mënoo parce que ki lay jox xam-xam soo ko jox respect bi war ki nga xam ne joxula la xam-xam da nga ko koy romb du sa papa du sa yaay du sa dara da nga ko romb nii rek noo koy joxee respect. donc loolu dafa nekk loo xam ne il faut que ñu xool ci il faut que ñu ñu ñu kii ko ñu te loolu aussi euh, dafa am ñoo xam ne euh, ñoom ñëwaat di joxe exemple. ñi joxe exemple ñan lañu war a doon mooy suñu leaders yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk euh, des leaders d'opinion ça peut être des leaders politiques est-ce que tu vois ça peut être les leaders de la société ah ñun ñëpp dañu war di incarner loo xam ne ku ñu gis ah dafa war a wax ne man. nit kii laa bëgg a mel. d'accord jërëjëf. bàyyi bàyyi tere parewu ma. Mhm. étudiants yi lii xew dans le campus universitaire. mënuñu bala blâmer kenn ku dul suñu bopp. nous les leaders politiques ñun ñoo bugg a jël le campus universitaire politiser ko de sorte que consensus pour mu am fa day am problème nit li tax muy am problème mooy kenn benn leader politique buggoo sa groupe topp loo xam ne beneen groupe. leader politique moo ko wax te yaakaar na su fekkee ne ñun dañ bugg a avance dañu war a seet li nga xam ne moo ñu mun a boole ñu d'accord ci ñun ñëpp mu nekk baaxum comportement boo xam ñun ñëpp moom la ñu a topp ndax li nga xam moom la ñuy wut ñu am ko pour mu gën mu gën a yomb ci ñun. Mm-hmm. est-ce que vous voyez euh, et sànq ci élèves yi ça s'empire au niveau de l'université parce que étudiant ah yow da nga ñëw pour wut si xam-xam. ñëwal jàng. te bañ a topp ñi naan la bul jàng man tey su ma amee un étudiant du PRDS ma ko euh, en grève bu leen accepter li leen gouvernement du jox nañ leen fay seen bourse léegi léegi léegi wala suñ leen ko fayul euh, grève leen loolu je ne rends pas service aux étudiants c'est des exemples que je donne rek. Ah, mais mais tamit euh, tey professeur. mais professeur am na loo xamante ne ñun dañ ko nemmeeku est-ce que du loolu mooy encourager euh, étudiants yi di def politique ndax ñun suñu gouvernement yi ñu fi gis. moo xam bu euh, Abdoulaye Wade la wala Bob Diouf wala ba ci président Macky Sall. Mm-hmm. bëri ci ay ministres yoo xam ne dañuy wax ne ñoom ñoo jiite woon faculté sangam. Mm-hmm. ñoom ñoo jiite woon amicale sangam ñoom ñoo doon def ñoom ay grévistes lañu woon dàqoon nañu leen yooyu exemple yooyu ñu koy faral di joxe du encourager ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy étudiants yi ngir ñuy gën dugg ci wàllum politique. Euh, waaw xam nga mun nga dugg ci politique. mun nga dugg ci politique te politique du la yàqal. mun nga dugg ci politique te doo yàq ci politique. est-ce que waaye xam nga euh, euh, li nga wax léegi. ay man maa nekkoon lii ak maa nekkoon lële dafa am gis nga dans la vie. man quand je suis première chose bi ma indi université mooy njàng. mun na am nag ay activité syndicale mun naa ko am. waaw mais damay xam. fan laa ca war a yem du ma dem benn bëgg ma yàqal suma njàng bien sûr que des fois am na responsabilité am na ñoo xam ne aussi am na foo xam ne des fois responsabilité c'est partagé parce que état dafa am devoir euh, envers les étudiants comme ni mu ko amee envers la société envers le peuple sénégalais ah mais aussi étudiant dafa am avant muy réclamer son devoir son droit du moins dafa am devoir devoir am devoir am mooy jàng mais léegi nag bu lu bëgg a ñëw na bu ko yàqal njàng war na ko mu nag war d'accord naa pour mu xeex ko mais na jàng. jërëjëf euh, Mamadou Ndiaye euh, mbokk yi yéen a ngi déglu réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi Mamadou Ndiaye parti républicain démocrate du Sénégal PRDS moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan lu jëm ci wàllum politique waaye nag comme ingénieur la professeur la informaticien la moo taxoon ñu ñu daal si rax lu mel noonu. léegi nag Mamadou Ndiaye yow mi jiite parti républicain démocrate du Sénégal da bokk ci. benn coalition muy coalition euh, jot na euh, lan moo tax nga dugg ci coalition jot na ndax yow euh, sànq sa biir wax yow nee nga vision bi nga am su doon gis nga benn parti politique boo xamante ni am na vision boobu doo bokk doo dem di créer parti politique wala ngay ànd ak nit di créer parti politique da ngay dem bokk foofu léegi bi nga créer yow sa sa parti politique yàgg say nit mhm. am sa vision bopp. comme yow li li ma li ma la dégg daal mooy depuis que l'indépendance ba léegi gisoo fi kenn ko fi bokkal vision kon lan moo tax léegi ngay dem ci coalition Diono lan moo tax dëroo sa yoon bopp li ñuy wax système bi nga dem sa demu bopp euh, proposer Sénégal yi sa projet bopp. Euh, xam nga du ma ne euh, ba ñu depuis indépendance bi léegi gisuma parti bu bokkal vision mais li ma wax mooy bi may créer parti. parce que bi ñuy créer suñu parti euh, c'était en 2015 ça faisait donc 55 ans après les indépendants xam nga les parti politiques. dañu mais mais boobu ay partis politiques ñoo ngi fi. waaw waaw dama lay wax rek les partis politiques dañuy subir ay mutations. mm parce que les personnes changent les leaders changent les comportement change euh, la façon de gérer la la cité change pour certains. est-ce que tu vois. Euh, peut-être am na parti yoo xam bañ leen di créer bañ leen di créer peut-être amoon nañ bokkoon nañ gis-gis ci certains domaines mais après mutation yu ñu subir tax na ñu toll foo xam ne ñu gis leen euh, ñu def seen preuve ci terrain bi ñu gis euh, dison différence entre ñoom ni ñuy defee ak ñuy gisee yenn yi ak ñun ni ñu koy defee ak ni ñu koy gisee donc loolu. euh, cela ne suffit pas cela ne signifie pas que euh, c'est pas euh, des partis politiques fiables mais c'est que des partis yoo xam ne ils ont leur chemin et nous nous avons notre chemin il y a une différence euh, ci chemin yi cela ne signifie pas que aussi mun mun mun mun amuñu ay convergence de point de vue dans certains domaines est-ce que vous voyez d'ailleurs loolu moo indi li ñu dugal ci coalition Jotna quand ils sont venus nous voir Quand ils sont venus nous voir en janvier 2021 euh, waxtaan nañu toog nañu waxtaan ñu gis ci ñoom lu ñu intéressé d'abord mooy euh, le fait d'être des opposants républicains gis nañu ne ce ne sont pas des nihilistes dañuy reconnaître quand il de bonnes choses qui sont faites te ñun aussi loolu lañu ñu gëm dañu gëm ne nit nit. mais nooy na nag ni ngeen opposé. waaw waaw mais xam nga xam nga euh, li ngay wax nit surprendre ma parce que euh, yéen les médias da ngeen yaakaar ne ku ñëwul critiquer saaga ah wala xaste il n'est pas opposant c'est pas ça je di que c'est pas de l'opposition civilisée est-ce que pour man et xam nga yéen euh, ce que vous devez faire gis nga li américain di naan you giving the person a blank check yenn opposition opposant yi day ñëw fii. wala ñeneen yépp ah dañuy ñëw fii euh, di xaste defuñu fi dara lii alors que je pense que le problème ne réside pas en cela xam nga ce qui important qu'est-ce que vous au peuple sénégalais c'est ça qui important comment comptez-vous gérer ce pays su fekkee ne demee dañ leen ko jox xam nga euh, y a rien de plus facile que de critiquer moo gën a yomb lépp. mais détruire may ma rek may ma may ma détruire est plus facile que construire. C'est pourquoi les gens viennent ici, ils ne vous parlent que de destruction. Et qu'est-ce que vous faites Vous êtes content de ce qu'ils vous disent. Non. Demandez-les ah <laughs> demandez comment construire le Sénégal si fekkee ne tey jox nañ leen réew est-ce que vous allez avoir des réponses qui vont vous satisfaire essayez ça hmm? bàyyi leen bay leen bàyyi leen ku ñëw rek xaste saaga ngeen kontaan tàccul ko mu dem déedéet. laaj leen ñoom lan la ñu proposé à la place c'est la chose la plus difficile moo tax ñun duñu xaste et puis pour nga am droit critiquer il faut avoir aussi le devoir de reconnaître mm-hmm. ce qui a été fait de bien est-ce que tu vois moi je ne suis pas de l'APR hein euh, mais quand le président Macky Sall fait quelque chose de bien je le reconnais. Ah, mais yéen ou bien déglu ma rek déglu ma rek. ou bien si je ne reconnais pas ce qu'il fait je perds mon droit de le critiquer est-ce que man loolu su ma gis-gis. Ah, mais mais oppo mais bokk leen yéen ci oppo opposant yi nga xam ne tey bu ñu gisee lu tax ñu wàcc si mbedd mi dañuy wàcc si mbedd mi euh, takk sagar yu xonq bu ñu waree ñaxtu ñu ñaxtu. xoolal gis nga xam nga ku nekk euh, dafa am yoonam. xam nga euh, gis nga une marche pacifique y rien de plus y rien de plus légal. y a rien de plus patriote que ça mais quand je ne veux pas assurer que la marche sera totalement pacifique je préfère ne pas m'impliquer parce que man je suis contre les destructions je suis contre yàq yi kaas yeeg yooyu man ak doomu aadama yi yi ciy faatu dama ko contre est-ce que tu vois man dama gëm ne euh, ci jàmm la lépp xaj waaw mais boo ko mais boo ko séqee président may ma ma rek may ma rek gis nga euh, su ma wóoroon ne bis bu ma jógee di marche même si je dois marcher deux kilomètres mu wóor ma ne du départ jusqu'à la fin personne ne va infiltrer ma marche ba di ci créer ay problèmes yoo xam ne man après dama koy regretter parce que aussi. Euh, euh, ñun opposition suñu dañuy jóg di marché bàyyi suñuy doom kër ga jël doomu jàmbur yi boo leen ci marché bi euh, seen bakkan faat ci ah te du ñu am jeune ne dis du ñu am regret mais du ñu am benn benn benn euh, solution boo xam mun nañ ko parce que euh, nit ko su dee dee na on ne peut pas le faire revenir kon yow kooku qu'est-ce qu'il représente. kon yow kon su ma la déggee mooy euh, Ousmane Sonko taxawaay bi ma am woo appel yi muy def pour ñu wàcc si mbedd mi manifester yow àndoo ci. Euh, li ma lay wax mooy euh, man duma tudd turu kenn parce que nag dama am yoon ci suma politique keneen am yoon ci ci politique am respecté naa yoonam. mais ànd nga ci wàllum déglu de du ko def. àndoo ci. ma ne du ko def. mooy àndoo ci lépp déet bu ma wax loolu ma waxul dama ne du ko def je ne vais pas appeler ay nit ah à un mouvement à une insurrection je ne dis pas que ce qu'il a fait mais loo xam ne mun na bo mun na indi sabab mun na indi faat bakkan mun na indi ay yàq man duma ci du du ma ko initier. d'accord léegi coalition jot na. Euh, ce que fi mu ne nii nekk na coalition bu structuré wu ndax ñenn ñi dañoo jàpp ni bi fi euh, ba fa Pastef génnee dafa néew doole lan nga ci man a wax. Euh, xamuma woon euh, mënuma woon apprécier dooleem ba parce que Pastef nekkee mais tey jii mën naa apprécier dooleem tey jii parce que le truc là nu mu tudd la coalition jot na est un ensemble de 19 à 20 partis politiques et mouvements politiques est-ce que waaye euh, que nit ñi xam ne am nañ doole wala ñàkk nañ doole. je pense que ce qui importe pour nous c'est que nous empruntons notre petit bonhomme de chemin et ñu ngi liggéey tabax loo xam ne euh, ci kanam la du ci ginnaaw le temps est un juge patient yàlla ñu yàlla may kattan yàlla ñu yàlla may yar yàlla ñu yàlla may wér-gu-yaram bu ñu boo xam ba dañuy accompagner ci yoon bi ñu nekk bañ yegg bañ yàgg fi ñu bëgg a jëm je sais que on de créer des surprises dans ce pays la d' accord léegi euh, Mamadou Ndiaye euh, wax nga sànq ne parti politique yu bari ñoo nekk ci biir coalition Jotna euh, mais est ce que parti politique yi nekk ci biir coalition na tamit est ce que am nañ benn dayo bi au niveau national ou au niveau international. xam nga xam nga. parti politique rek yomb na. waaw waaw waaw dama lay wax leen rek xam nga dañ la ne parti politique et mouvement je prends un exemple un parti politique euh, qui couvre par exemple euh, deux. de de de régions par exemple voilà une région un mouvement qui couvre euh, cinq wala quinze communes ah euh, nga jël ci une une vingtaine je pense que soo ko xoolee soo ko xayma je pense que mun nañu wax ne tey jii euh, on est présent dans tout le Sénégal maintenant il y a un travail boo xam ne. euh, il doit se faire et on est en train ñu ngi ciy liggéey mooy fexe ba massifier euh, nit ñi fexe massifier seen parti politique et par conséquent massifier la coalition Jotba parce que fu parti politique bu bokk ci wala mouvement bu bokk ci euh, coalition bi massifier woo ah par ricochet day massifier en même temps la pré euh, la la coalition Jotna donc daf koy gën a daf koy gën a jox doole. Mm. waaw donc li am solo mooy que ñun que ñu bañ a toog si suñu laurier continuer di liggéey di massifier ah Euh, di liggéey loo xam ne vraiment coalition bi dañ ko gën a xam parti politique yi nekk nañ leen gën a xam. ku nekk da ngay a liggéey fi nga xam ne foofu nga présent nga nga jéem a sa sa wala parti politique foofu. léegi euh, élection locale yi ñu dëgmal ban taxawaay ngeen ci far ngeen ci bëgg a amal da ngeen bëgg dem yéen coalition jot na rek comme parti yu bëri ngeen ak euh, ngeen def ngeen ànd ci seen biir wala xalaat ngeen tey ci yenn localité yi comme par exemple tey fi nga xamante ni moom mooy commune bu Patar Sine mm-hmm. nga nekk fa candidat. est-ce que di nga d'accord ñu bokk ci APR ñu nangoo ñëw ànd ak yow wala ñu bokk ci PDS nangoo ñëw ànd ak yow wala yeneen wala yeneen kuréel. xam nga euh, li ma la mën a wax mooy au niveau de de la coalition jot na euh, suñ stratégie pour dem ci local yi euh, c'est une stratégie unique et commune. dañu ànd pour jël réew mi changer ko te changement am réew. ci base bi lay commencé doole coalition bi ci élection locale yi lañ koy natte bii nii élection locale yi di ñëw nii ci lañ koy natte donc bëgg nañu fu candidat euh, un membre de la coalition nekk candidat bëgg nañ coalition bi dem fa accompagner ko jox ko loxo. fu ñu nekk aussi parce que xam nga local c'est important quand tu locale local c'est local fu ñu nekk aussi fu ñu am candidat. yeneen parti politique yoo xam ne dañu am dañu bokk gis-gis bi développement commune bi moo leen intéressé ñuy ñëw bëgg bëgg jàpp pour que ñu ànd dooleel euh, euh, gestion euh, commune boobu ñun du ñu dàq kenn nous sommes ouverts voilà. Mamadou Ndiaye ba tey ñu wax ci li nga xam ne bu élection locale yi laaj bu mu jib si loolu mooy code bu yees bi nuveau code électoral bi. xamante ni tey euh, parrainage euh, parrainage bokku si léegi euh, ki nga xam ne mooy jiite ku jiite list dañuy xam ne kii bu listam gagné moom mooy nekk maire directement wala mooy nekk président conseil départemental directement changement yooyu am ci code bu yees bi yow lan moo ci sa xalaat. li ma la mun a wax mooy motif de satisfaction. et vraiment euh, foofu il est bien vrai que euh, opposition c'est-à-dire le dialogue bi nga xam ne euh, dafa dafa dajale opposition euh, société civile ak ak euh, nu mu tudd mouvance présidentielle ñoom ñoo ci liggéey ba d'accord ci je pense que foofu il faut quand même remercier l'ensemble des parties prenantes yi nga xam ne ñoo indi ñoo indi ñoo fexe loolu am ñoo fexe loolu am heureusement que Euh, le président avait di que lu am consensus ñu appliquer ko heureusement consensus am na ci côté boobu parce que la doon xew avant nga xam ne da nga doon ñëw euh, jiitu gagner élection ñu ne voilà kii tànn maire bi bi ñuy tànn maire bi conseil ñooy tànn maire bi et on sait ce qui se passait ah ci guddi la la veille guddi guddi guddi guddi guddi la veille de de l'élection du maire il y a beaucoup de choses qui se passaient des corruptions yoo xam ne c'était kenn mënu ko kenn mënu ko wax est-ce que tu vois da nga sax koo xam ne soo xoolee exactement euh, pourcentage bi mu am ci ci commune bi c'est plus faible que par rapport à d'autres personnes mais il, il devient maire parce que il a eu de l'argent pour corrompre à gauche à droite est-ce que vous donc le fait que euh, tey jii ki nga xam ne mooy tête de liste nit ñi ñëw votal ko mu gagné moo nekk maire kooku vraiment je pense que c'est un grand service qu'on a rendu au peuple sénégalais. changement yi am na ci mbégte. naa ci mbégte bu baax baax point boobu moom vraiment macha allah. je pense que c'est la victoire de l'opposition ah mais aussi euh, c'est la victoire euh, d'un consensus national boo xam ne vraiment les gens ont accepté ils ont regardé ils se les yeux dans les yeux ils se sont dit lii moo gën ci euh, euh, euh, local yi. nañ ko appliquer ñu d' accord ci. d' accord jërëjëf euh, Mamadou Ndiaye euh, mbokk yi moom la ñu invité tey si seen émission euh, pencum réew mi ci rajo réew mi FM moo jiite parti républicain démocrate du Sénégal PRDS mu bokk ci coalition na membre la ci moom nag ma ngi milité ci commune bu Patar Sine département bu Fatick mooy département moo foofu sax mooy mooy goxu njiit réew mi Fatick ba askan wa fa nekk fatigué wuñ Mamadou Ndiaye. waaw euh, <laughs> loolu question woowu de moom question bu bu bu intéressant la mais li ma la wax daal est-ce que am na ñu fatigué fii ci Sénégal bëriwuñ de bëriwuñ de la situation situation dëkk bi euh, tar na tar boo xam ne euh, yaakaar naa dafa am dafa dafa dafa jot vraiment ou bien ñun ñëpp ñu ànd defar réew mi wala ñu jox ko ñi nga xam mun nañ ko defar. parce que tey jii yow dafa mel ni daa koo dem ànd jeeg njiitu réew mi liggéey. non c'est pas que ay ànd ak njiitu réew de xam nga li may wax xam nga euh, xalaat ak xel xam nga conseil euh, am sa xalaat wax ko def critique gis nga critique sax dafa bokk ci lii boole di liggéey xam nga président tey su su suñu doon déglu déglu opposition yi critiques yi ñuy def critiques yooyu daf koy permettre mu réajuster ah su fekkoon day dévier tuuti mu réajuster. mais jafe-jafe yi sénégalais yi dund. waaw si incompétence su Macky Sall la moom mi jiite réew mi la. si ñàkk mënam la. ak ñàkk xam-xamam la. wala lan nga jàpp ne moo ko waral. waa mais mooy leader bi moo jiite. donc luy luy luy luy jiin. luy njiin mooy njàpp luy njiin mooy njàpp. mooy président mooy rep mooy mooy président de la république mooy choisir ministre yi mooy choisir directeur généraux yi. lu doxul moom la su lu doxul moom la. d'accord. Euh, léegi ñu jeexale ci coronavirus bi gis nañ ne ma ngi gën di yokk ci Sénégal mais troisième vague bi dafa am ñoo xam ne dañ ko tuumaal euh, way politique yi ndax nee nañu yéen opposition bi def ngeen fi ay rassemblement peut-être yéen coalition jot na mën ngeen see bañ a bokk mais gis nañ tamit ne président Macky Sall tamit tuumaal nañ ko ko ndax def na fi benn tournée économique boo xam ne ginnaaw tournée bi daal la ñu bari nemmeeku ne kaay yokk na ba ñenn ci askan bi di ko ko tuumaal mais coronavirus bi de manière générale yokk na ci ci Sénégal. te ma ngi indil Sénégalais yi jafe-jafe yow lan moo ci sa xalaat. Euh, suma xalaat mooy d'abord euh, troisième vague bi euh, mbooleem ku mos a rassemble ëpp deux personnes rek am nga ci responsabilité à commencé par lu la tournée du président de la République la tournée économie euh, du moom rek yaa a d'autres partis de l'opposition aussi qui ont fait des tournées peut-être que moom moo ubbi baal bi mais responsabilité yi à commencé par lui. ah sont des responsabilités partagées parce que tey jii dañu dem ba toolu foo xam ne ñu doon am yaakaar ne euh, mbas mi même su demul aussi euh, daanaka on a remarqué une certaine accalmie ñu commencé di génn ah di def ay meeting à gauche à droite di def ay mobilisation doo gis kenn ku sol masque et voilà les conséquence est-ce que d'accord nga ci tëj bi tëj raison yi. Euh, lii ma la mun a wax mooy gis nga mbas mi suñu su yeboo jàng comment vivre avec parce qu'il va y avoir toujours des mutations gis nga li ñu doon def par exemple nga jël euh, euh, la fièvre fièvre jaune par exemple xam nga dafa am période boo xam ne dañ koy vacciner wu est-ce que tu vois après un certain nombre d'années nga vacciner wu ko après nga renouveler est-ce que vous voyez c'est à peu ça d'être la même chose je ne suis pas un docteur je suis pas un médecin mais dama gëm ne mutation yi du yem fii peut-être que ñu loolu lañ bëgg dañ bëgg mu jaar fii dem. waaw mais pro loolu proposé loolu proposé bi may ma may ma rek xaaral suma pare dinaa wax li ma la proposé. Euh, li ñuy ñaan yàlla mooy mbas mi jóge fi mais dañu am comportement yoo xam ne fi mu nekk nii euh, c'est pas des comportement yoo xam ne qui militent en faveur de la disparition de la de la maladie. parce que euh, pour nga gis koo xam ne sol na masque c'est un problème pour nga gis koo xam ne day respecter les barrières. yi nga xam moom lañ joxe c'est un problème e euh, que cela soit au niveau des transports publics que cela soit au niveau des voies publiques que la soit au niveau de l'administration que cela soit au niveau des bureaux personne pratiquement ne respecte les mesures barrières. d'accord léegi euh, Mamadou Ndiaye léegi yow jamono jii ndax ñenn ñi euh, dañ ne état d'urgence tëj euh, région de Dakar comme fi la ëppee pour cent yow ban proposition ngay def ci 30 secondes waxtu jenn la proposition bi may def mooy. Euh, il faut que ñu jël suñu responsabilité. comment jël responsable mooy il faut que qu'on soit décisif sur l'application des mesures barrières xam nga tëj aussi munul mënul yàgg mënul dem parce que au finish c'est l'économie qui va s'écrouler. d'accord jërëjëf. voilà jërëjëf ñoo lay sant di la gërëm. maa ngi lay jaajëfal Abdou di la remercier bu baax ba di remercier di remercier aussi mboolem suñu auditeurs yi nga xam ñoo ñu doon déglu jërë ngeen jërëjëf euh, Mamadou Ndiaye euh, moom moo jiite parti républicain démocrate du Sénégal PRDS euh, moom ingénieur la professeur la informaticien la mu nekk membre ci coalition na Euh, mu ngi dëkk ci département Fatick commune bu Patar Sine foofu sax candidat la fa incha allah ci élection yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal euh, ñu koy sant bu baax a baax di ko di ko gërëm ci euh, wisi bi nga xamante ni wisi woon na ko mbokki li mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.